salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel bu baax tey ñu ñëw ci sëñ Ahmadul Maxtaar di ñaan yàlla moo fi nekkal sëñ Ahmadul Moustapha Mbacke dañaan yàlla mu yàgg rek fi lool te ko eh, di ci yitteem ju kawe ci yoon wi ak liggéeyam bu kawe ci yoon wi ak mbaaxam ñëpp ràññee ko xam ko tey nag ñu ñëwoon fii doon ko leeral liggéeyu karawaan eh, Mayumba bi nga xam ne moom liggéey Sëñ Tuubaa fale ci Gabon ci Mayumba mu liggéey boo xam ne eh, Sëriñ Fallou Bousso moom signaliw moo ko taxawaloon ngir bëgg liggéeyal Serigne Touba wutloon ko benn ONC boo xam ne daf koo wutloon ay kayit ba kayit yëpp mat ba bis bi génn ngir fu mboole fu waaye mën nekk ci àdduna bi rek mën a sukkandiku ca kër yooyu dugg biir ngabo dem Lambaréné dem Mayumba Serigne Touba demoon fépp mën koo visite ko mën koo mën koo siyaare mu amoon na ay procès yu mag yu mu fa naaloon muy jumaa ak kër Sëñ Tuubaa ak daara yoo xam ne ah, bokk liggéey Sëñ ànd ko mbokk taalib yi nga xam ne ñoom la àndoon doon liggéey ba yàlla dugal suñu borom moom ko liggéey boobu nag moom lañ fas yéene ànd kook njaboot gi nga xam ne moom la àndoon doon ko liggéey ñu fas yéene ko jëmale kanam incha allah rabbi ginnaaw bañ ci amee ndigalu sëñ Mahamadul Muntaxa mu ah, mu ñaan ci joxo ci ndigal ñu ñëwoon nag ci sëriñ bi doon ko leeral liggéey ba ak tolluwaay bi di sàkku ci moom ñaan ak ay kàddu yoo xam ne kàddu yu soññee lay doon ndax barab la boo xam ne fa la Sëñ Tuubaa liggéeyee mbooleem liggéey ba mu liggéey bépp barab boobu nag la ñu bëgg a mandargaal jëmmal fa Sëñ Tuubaa loo xam ne fu waaye nekk ci àdduna bi da nga ko mën a teg sa bët kon sëriñ bi ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñoo ngi jéggal bu baax di di wàcce suñu kàddu di sàkku ci rek kàddu yoo xam ne dana gën a mën a soññi mbooleem taalibe yi ak mboolem koo xam ne am pasif ci Sëriñ Tuubaa rek ma ñoo soññiwaat bu baax ak di sàkku sa ñaan liggéey bi mu nekk liggéey ba Sëriñ Tuubaa gërëm. salaamaaleykum mbokk yi sëriñ mu ne mi ngi leen nuyu sëñ Moustapha sëñ Cheikhouna Bousso ak ñi nga àndal. nee am na mbégte lool ci ñëw gi ngeen fi ñëw tey jii. na di yëgle seen projet bu am solo bii lool. ñaan na mi ngi ñaan yàlla sunu borom def ci defal leen kàttan ba ngeen àggale ni ngeen ko bëggee. waaw loolu ci bant jàkka wax da cee mënta ñàkk a sànni kàddu rek ginnaaw ndax seen tànk yi ngeen dox ba yegg si fi waaye ginnaaw sëñ Mountakha waxoon na ci ba ba dugal ci kàddoom daanaka waxaale na yoonu murid yëpp. mooy kilifa ak mooy kilifa ak ñëpp. ñëpp mën nañ ñëpp. wax mhm. nee na ginnaaw sëñ Mountakha xas na ci yëkkati kàddu ba wax ci rek ñëpp mel na ne li mu wax rek lañ wax. nee na projet bi nag bu am solo la lool. lépp ci ndax lépp ci liggéey sañ Touba rek la. nee na day tax projet bi day tax nit ñi xam sañ Touba xam ay jëfam. xam li mu fi nekk woon. xam ak njabootam tamit nañu nekk foofu ci réew moom di Gabon. di xam seen jëf ak seen passif la ñu nekk noonu ci réew ma ci Gabon mu murid di nekkee projet bi day jëmmal seen jëf foofu ci liggéey ci dëkk ba. nee na mi ngi ñaan nag yoonu murid yëpp ànd ci te jàpp ci liggéey bi. nee na ni mu ko waxee rek ginnaaw sëñ Muntaxa ànd na ci te joxe na ci digal kon nag yoonu murid yëpp ànd nañ ci kon nee na kon yàlla na ko yàlla àggale te mu mel ni ngeen ko bëgg ci darajee sëriñ bi jërë ngeen jëf jërëjëf هادي الحنان من كيد من خلا وسالك نار الخل لي بر ما ينبغي